kawteef limaam Dramé moytul écran yi ak site internet yi wax bal bu xasee ba génn rek jeex na wax nga wax ju rëy nag dellu sil nga tuub am na loo xam ne kenn du ko wax dajji voilà am nga fit rek voilà ñeme nga voilà dëggu nga non loolu moom fi mu nit ñi weddi nañ ko léegi waaw maam moom daanaka mën naa wax dëgg yàlla jarutul ñu la koy wax parce que lii nga wax ni tuub ko bala ngaa faatu 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem koy topp fal 94 Walf Sénégal seen analyse ne leen koy ngi leen di jaajëfal te leen siyaar way leen di topp fal 94 Walf Sénégal Limam Dramé foo ko gis rek wala foo ko fekk rek mi ngi dem ci site internet yi di wax rek voilà dafa am loo xam ne nii soo ko méritoowul munoo wax a wax bañ def la ko yuuxoo jooy ak lépp a ci yam te gis nga gaa yi nekk ci réseaux sociaux yi ku leen bëgg di tontu di ko jaarale ci sit internet yi da ngay sonn voilà wax dëgg yàlla jëloon nga yoon woo xam ne nii moom ñëpp apprécier woon nañ ko ñëpp doon nañ la ci tàccu voilà bu fekkee da ngaa dem ba nan la imaam nga ku bari xam-xam nga ak yooyu noonu nga dem bay wax loo xam ne nii wax dëgg fa yàlla ëpp na suñu nopp man moom ma cee jaaraat waaw yonent bi kenn du ko sax sosol wala addis yi voilà foofu sax du ma fa waaye xam naa daal. li ma la mën a xamal mooy moytul site internet yi ak caméra yi nii saw làmmañ dina la yóbbee musiba woo xamul de xale yi tamit mënoo leen a tontu yi nekk ci réseaux sociaux yi dafa dañoo dañoo bari de dootuñu bàyyi kenn muy wax lu ko neex voilà fii réew mi dootuñu jël am sàmba suraabaale moo xam ne tek rek fële mu yàq rek di dem loolu duñ ko def xeex bi moom xeex nga wala xeexoo fii Sénégal ñëpp a xeex xeex bi ñëpp a xeex voilà du Limam Dramé rek moo xeex kee xeexul déedéet ñëpp xeex kenn ku ci nekk projet bi da laa jaraloon Sénégal jaral la parce que dafa am ñoo xam dañ doon xeex ngir Sénégal jag defaru du Ousmane Sonko wala patri wala wala wala wala Bassirou Diomaye Faye déedéet Sénégal ci boppam liñ gisoon ñi fi nekkoon doon yàq depuis 1960 loolu lañ bëggoon mu jege fi moo tax mu demee nii mu demee mais bu fekkoon yow dong yaay xeex ak ñeneen yeneen kuréel yu ndaw kan du demee nii mu demee kan da xam ne Sénégal yëpp a xeex kenn ku nekk ak ni nga xeexee nag parce que am na ñoo xam ni dawoo leen gis ci teere bi dañ doon daas seeni carte d'identité di xaar ndax loolu ci xeex bi la te foofu loolu mooy xeex bi gën a ëpp doole voilà waaye nag am na ñoo xam moom dañ doon xeex ba ca cëppaandaw la ñu boole seen carte d'identité ak seen bët yi fëq ak seen bopp yi toj voilà yow rek nga bëgg chaque jour nga toog ci télé yi di wax loo xam ne nga dem tey jii ba wax loo xam ne wax dëgg fa yàlla bu la fukk bëggoon jàppal ne ñetti juróom-ñeent ñëpp bàyyi nañ la bu la fukki nit bëggoon juróom-ñeenti nit yëpp bàyyi nañ la ndax am na wax yoo xam boo ko waxee rek nga baal ma da ngay soof nit ñi voilà te foofu nga toll fi mu toll nii voilà am na loo xam ne nii ab jullit waru koy wax même bu xamee sax waru koy wax am nga xam-xam ba egg ci tayo ba waroo wax li nga xam ne warut